Caatu Souleymane Diaw moo ñu woon ginnaaw nii Caatu Souleymane Diaw ak clandestin arbitre bi sifflé na Caatu Souleymane Diaw école de lutte Balla Gaye moo clandestin Caatu Souleymane Diaw moo ñu woon ginnaaw clandestin moo jël lu vert li teg ko dugal ko ci ngemb li Katsu Süleyman Gökhan Lesen. Thank you. Amém. Diaw daan na ko da ko door tànk clandestin daanu na gis naa Asise di jubilé Asise kii mooy kan. kii mooy Thiatou Souleymane Diaw. kii mooy Thiatou Souleymane Diaw. waaw. direct Mbaye Diaw sant yow mooy direct Mbaye Diaw sant yow mooy. Sarak daan na. may taw looy wax suñu paa la ñuy wax. wallaahi alhamdulilah la sant yàlla. di ñaan mu jikko bu baax bu baax baax di ñaanal assise ménagère. parce que mu taxaw bu baax wax dara. wax man di caat Souleymane Diaw budul dul caat Souleymane di jawdin budul jawdin nekk. waaw jawdin numéro 2. ñuy taxawu si Zaire taxawu si Bade. mais mais as sama boy kan ngay jël avance. bii ba Gaston production la bokk ñoo ko jàpp. ah Gaston production lay bëre. ndeysaan waaw alalu bakkan la ko waaw. waaw ndeysaan yaakaaru laa ma. waaw incha allah sa combat Gaston daal ñaari booy ñoom ñaar. non ñoom ñëpp xam nga seen mag moo ma leen dégg. ñuy ah. jaww ji. Ah. ak laay a yor nag. Ah. yar yu am teggin ñu joxe cër yu bëgg sport. mënuñu dara. ñu leen ciy jàppale daal. waaw am nañ fulla am nañ fayda. waaw ay xale lañ nag mais rectification yu ndaw rek quoi. da ngaa jël avance Modou Lo daa jël avance. non loolu moom du ma jël. ndeysaan aas bañ na see wax aas bañ na see wax ndax Modou Lo jël na avance waaw wala déet. jaatu Souleymane Diaw ngoog. alors jëli bi nga daan moo jaaxal ñëpp. man damaa mën a bëre. ku ko def ci yow damaa kaw bu yàgg. waaw bëre sama dalal la nekk. ok Souleymane Demba Diaw mooy sama papa. mais da ngaa jël ay dugub yi mooy sama mag. Diaw bi Mbaye Diaw mooy sama mag. ndeysaan Lamine Gora moo may seere mi ngi nii. bëre dama kaa mën. dañoo sonn ci woon. bi mooy sa ñaateel combat. bi mooy sama troisième combat. ñaata victoire. doo doo defet deux victoire benn defet. ok si nu bari ñu ma ma jëm. damaa juum. damaa juum damaa juumoon. léegi nag Música